yëkkati ay kàddu yu bàyyikoo ci sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadou Roqaya Mbacke yal na yàlla may ko fan wu gudd ànd ak wér-gu-yaram mu jëlee ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa wàcc ci sëriñ Abo Mohamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun yal na ko fi yàlla yàggal lool te gën a dolli ak wéram jëm nag ci mbooleem taalibe yi nga xam ne aju nañ ci kër gi sëriñ Cheikh Anta di yëkkati ay kàddu yu cant di ko jëmee ci ñoom ci liggéey bi Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa doon nag ko liggéeyloo muy yeesalaat wala dolliwaat bâtiment bi nga xam ne mooy bâtiment ziar bi nekk Daaru Salaam ci Touba te te ñu àndoon ko ak moom ñu tàmbali woon ko le 16 octobre sun borom subhanahu wa taala dogal mu noppi le 16 décembre ba nu jébbal caabi ji Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa Serigne Cheikh na mi ngi yëkkati kàddu yi cant di ko jëmee ci mbooleem njabootug Serigne Touba gépp waaye tàmbalee ko ci wayjuram di sëriñam di sëriñ Abo Mohammed mi nga xam ne tey jii moom lañu ñu xoolee sëriñ Mudu Maamun di ko xoole wayjur ya ak mbooleem njaboot gi yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di santit mbooleem taalibe yi waaye tàmbalee cant gi nag ci ñi mu bokkal sëriñ Mudu Roqaya tandi ak njaboot tàmbalee ko ci Cheikh Mahamadul Maamun ba jaar ci sëriñ Mbàkke Madina mi nga xam ne mooy caat mi sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di beral ak cant nag seen rak jëleen leen fa toogaloon di sëriñ jiili mu sëriñ Modou Rokhaya di ko ñaanal yàlla sun borom taxawu ko te sàmm ko sëriñ bi di sant nag mbooleem taalibe yi bàyyiwul benn taalibe ngërëm lii ko sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha gërëm ñoom ñoo ko moom. ndol leen loolu mu ko dolli te mandargaal ko ci aw fas tuddee ko aziyadatu te moo di ndol leen te wax ne yaari fas la woon wenn wa tudd xusna wenn wa tudd aziyadatu ba delluwaatee ci alxuraan da nga xam ne ko amul amul xusna du mën a am ziyaada ndax lillazina ahsanul husna wa ziyaada kon nag sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ndool leen loolu yal na ko sëriñ Tuubaa wéy duñu ko dolli ba ba aj ba bañ dem àjjana ci barke Cheikhul Khadim ginnaaw loolu nag sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati yëkkatiwaat ay kàddu li ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mahmadul Muntaxa jaar ci sëriñ Abo Mohamed mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Muudu Maamun addiye ji nga xam ne sunu wayjur bu baax wa doonoon sunu sëriñ di Cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacké moo ko naaloon ci Daaru Salaam ci atum 1983 wax ne bëgg na at mu jotati njabootu maam Seex Anta gépp daje dajale addiye yët ko ki fi nekkal Serigne Touba ndax nee na ñun waa Daaru Salaam saa yu ñu noppee joxe addiye ñoo ngi mbaab yi ci mbedd mi ñooyam ndax Serigne tubaa loolu la ñu àndeek moom ndigal loolu nag moo jegewaat war a doon le 7 janvier Serigne bi ne ginnaaw bu mu soññee boppam soññ ay rakkam mi ngi soññi mbooleem taalibe yi ak seex si fu ñu mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew di leen xamal ne bi nee na saa yu ñu duggee ci am at daan ci addiya lu ñu songati ci at mooma ñu daan ko waaye boo duggee am at addiya daan la ci nee na loola songati ca at a daan ko te sëriñ bi ne daa bëgg ñun ñuy daan di féete kaw ba faaw kon nag nañu fexe ba daaw yóbbu woon nañ ñetti téeméeri million yu tegal fukki million sëriñ bi nee na fas nañ nañ fas suñ jom la sëñ Ablaat waxoon ne nawet bu nangu xol yu nangoo ko gën nee na wóor na ko ne moom xol yi nangul na sëriñ Touba kon nañu waajal addiya ji la 7 janvier la sëriñ bi nee na mi ngi ciy soññi boppam di soññ ñëpp di ñaan sun borom gàttanuñu ak ndimbalam ak taw tawfeexam kenn ku nekk jom jang ci amoon nga fasaat ko yéene def ci lu ko ëpp ba bun ci àggee la nga joxe woon daaw doon asaka yi ngay joxe ren jii sëriñ baa ngi sant ñëpp di ci séentu ñëpp di leen fàttali ne bis boobu ci la ñuy fàttaliku jàmbaar ji ko sosoon di sëriñ Mouhamadou Rokhaya Mbacké muy màggalug yeeslu sëriñ bi nee na dañuy yendoo màggalal sëriñ Modou Rokhaya jàngal ko alxuraan a xasida ak yendoo nangu addiya su ngoonee ñu waxtaanee baaxoog sëriñ Modou Rokhaya Mbacké ak i jaar-jaaram ak i taxawaayam sogo yeewi mbooloo mi sëriñ bi nee na mi ngi sàkku ci mbooleem fu daaray alxuraan ma ne ne rawat na ñi ci daan jàpp ñu jàppale ko ci njàngub alxuraan mi di ci fàttaliku nag sëriñ Abdourahman moom sëriñ Abdul Xudoos mi nga xam ne màggal gi naka jëkk mu daan ko taxawee ci alxuraan yal na ko sun borom fay ci alxuraan fay ko ci liggéeyub sëriñ Tuubaa waaye yal na ko maam Cheikh Anta xaasalit nag boole koog la ko maam Ceernoy tibbal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu